seen kàddu dafa am leneen li nga xamante ni tamit da koy yokkal jeunesse bi kon gàcci ngalama pa Bécaye mbay waaye na xam naa ne en ce moment mbër yi nga xamante ni Malick Ngom mooy seen choix waaye en ce moment bëri mbër yi nga xamante ni wala ménagère yi nga xamante ni aussi tamit ki nga xamante ni moo fi nekkoon di président sortant di Bira Sène moo seen candidat lu mën a am gars yi nañu xam ni làmb bu ñu yàq dara nañ jël lépp te xam ni làmb ñoom ñett ku mën a toog rek nañ la jàppale encadré la fital la jàppale la de ce nga mën a ale de très loin loolu lañ leen di souhaiter mais Khalil Habib Habib gis nga Bira bu muy ñëw si làmb Bira bu muy ñëw si làmb bokk naa si ñi nga xamante ni El Hadj Baye sa balaa baax na <laughs> Bira Sène bu muy ñëw si làmb bëri na tey ñi nga xamante ni tey fekkee woon nañ ko man mii bu muy ñëw si làmb ñu koy dalal maa ngi fa woon maa fa woon bëri na tey li nga xamante ni joué na ko si làmb mais tamit nit mënul nekk di def chaque jour lu baax nit mënul nekk chaque jour di doxal am na fooy toll yàlla suñu borom moo naan changement war na am ñu changé am na fa nga xam boo fa tolloo sa xam-xam fa lay yem nga xam ne kat man mi def naa lu mu mënoon def sama xam-xam fii lay yem mais sa veut pas dire que ni Bira Sène dañ ko war a changé ku ku ku déedéet waxuma loolu Bira bu fi waree jógee yàlla xam na su fi warul yàlla xam na Malick Ngom su fi waree toog yàlla xam na su fi warul toog yàlla xam na Bécaye Mbaye su fi waree toog yàlla xam na su fi warul toog aussi yàlla xam na mais ku mën a toog rek gars yi nañ la jàppale gars yi il faut que tamit ñuy am courage jàppale nit il faut que ñuy am gëm-gëmu jàppale doomu aadama il faut que gars yi yaatal seen xol xool ki nga xam ne war nañ ko mën a booster ànd ak moom pousser ko vers la victoire gars yi ju pousser ko vers la victoire nañu def loolu nañu def loolu Fatma Dia kaay Fatma Dia kaay Fatma Dia kaay gis nga Fatma Dia Fatma Dia ah. dafa am li nga xamante ni ah. nit ñi dañ ko war a xam dëgg la xam nga muy lan ah. muy ku mën a toog nañ la jàppale Fatma parce que tamit benn lam du yëngu ñaaree yëngu te lu ñaar di ñett moom da koy da koy day gën a yëngu kon donc nañu jàppale képp ku fi toog ñu poussé la pour que nga mën a am réussite totale sa ay maa ngi lay nuyu di la ziar da nga ñëw tardif maanaam xam foo nekkoon moom moom moom bébé ñëw naa bu yàgg dama doon bàyyi nga doxal rek ndax sama doom nga su gisee nga yor yi di doxal kay may bàyyi nga doxal rek mais kon li nga wax rek dinuy mbokk internet yi ñuy suivre mais ñun dañoo ñëwaat fii amaat yeneen information que ne six candidats la dañoo indi seen candidat Aliou Ba ah waaw dafa ñëwaat xaaral Youssou Ndour bi gars yi bu ñuy yàq affaire yi gars yi bu ñu yàq affaire yi yaa ngi en direct ngay nuyoo lan ngeen nuyoo fan nga sëriñ damaa génnoon. te da nga ne bokkoo si kuréel bi. la ma ne bokk ma si kuréel bi. ah loolu laa gis parce que heure bi nga ñëw tardivement. waaw yoon bee xat rek. te mu nga yor deux roues ngeen yor bu ko yoon bi di xat. mais mais boo yoree deux roues tamit daa xat. macha allah waaw ah. macha allah mbir mi yaakaar naa lenn kese la mooy consensus bi nga xamante ni ministre bi waxoon na ko pour gars yi def ko ku ñu jéem xool ku ñu yaakaar war na mën a jiite bopp CNG ñu daal di ko fi teg mais dafa mel ni ba léegi procédure bi mi ngi en ba léegi gars yi trouvé guñu solution bi nga xamante ni moom la war a mën a teg si taabal bi tey en tant que mbër lan wax si li ñu mel. waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si bi sant suñu ñaari waajur di sant ñëpp ak teewaay bi fii ñu fi teew ñëpp comme ñun làmb la ñuy làmb la si làmb lañ nekk tamit si làmb lañ yëngu te moom lañ yaakaar xam nga tamit ñaam ka am ku ñu yaakaar ne buñ ko tegee yàlla dina faj suñu ajo kon yàlla yàlla def mu ànd mu sotti. tey ñu ñëwaat fii amaat yeneen candidat yu yokkuwaat. per Bécaye candidat la dégg naa entraîneur aussi dañoo créé tamit seen candidat pour le moment six candidats moo am te bu njëkk turu Malick yaakaar ak président sortant bi rek la ñu daan dégg. mooy li ma la wax bu mu ñëwaatee dégg gars yi ñun dañu cee bokk damay jaaxle mais ñun comme que ñun def nañ jiital nañ Malick ba noppi. ñun moom jiital nañ Malick ba noppi moom. kon daal yéen Malick moo seen choix. non si ndax parce que nit bu waxee waxaat rek bu yàggee day doon naa fekk te nit loo war a wax da nga ko war a dëggal comme ñun Malick la ñu waxoon tamit ñun Malick la ñu àndal amul leneen waaw. macha allah yaakaar naa démb gis nañu image yi nga xamante ni image yi bëri na askan bi ñu ko doon xaar muy Balla Gaye 2 ak Lac de Guiers ñi yéen ngeen joué si ay rôle am solo parce que dégg nañ lépp écho yëpp jot nañ ko vraiment ñuy bëbi sa bëbi ba nga xamante ni bëbi ba nga xamante ni yaakaar naa ni alag naa alag naa leen fa bërki dem si ngénte la tey li nga gisee image yi waaw lu war rek lañ def ndax tey ji Mathia ñoo ngi koy sant baax di ko gërëm ndax lépp moom la ndax tey bu àndee Balla Gaye Anta Lac de Guiers dañu daan def seytaane bu àndee Lac de Guiers Anta Balla Gaye dañu daan seytaane comme moom tey ba mu ñu waxee loolu dañ si dañ ko si fekk si ndigal na ko loolu nga wax bu rafet la loolu jarul sax ñu koy waaj dañ ko teel def xam nga la de Balla Gaye Lac de Guiers guy gi ñoom ñoo nekk géej waay yaa ngi dégg kon ñun amuñu lu dul di leen sant di leen gërëm kon loolu rek moo ñu war tamit loolu rek la ñuy def waaw asib ah, dama ma la ñuy abi tournel ga benn yoon abi teel ma lool lool teel ma lool fan ma xool ma caméra jàmm bi dañ ma ko dégg taal nga ko ah? waaw tàkk empereur des arènes Balla Gaye 2 ñëw na c'est revenu Balla Gaye 2 ñëw na Empereur ñëw na tàngo ko Empereur ba ñëw na Empereur ba ñëw na waaw di doog a yegsi yaa ñu gis kaar ndigal yaa ñu gis waaw waaw non dañ koy gunge ba subi ampleur yi noonu Balla Gaye 2 alliance Oumar Sakho ñoo ngi lay nuyu góor mais Balla Balla Balla nuyu nañu la Balla yaa Balla Cheikh Fall Cheikh Fall ndijaayam la un um petit mot rek un petit mot ampleur yi noonu góor gi urgent urgent urgent xoo ñu may tuuti ñëw jël image yi. mu dugg ba gën a soog a Umar a noonu ànd ak Gris Bordeaux. ampleur a noonu. ñu bàyyi ko mu dugg génnaat kon Umar ñu may la nga dugg génnaat. empereur empereur dafa ñëw rek pour ma pour yokk yokk cere mi. waaw yokk yokk ñeex ci cere mi. yaa ngi neex yaa ngi dafa dafa jaadu dafa jaadu. yàgg na ma xew ba waxu président ba pare. Ah, waaw léegi kon baa leen def seen ñoom ñaar consensus. après ah, waaw waaw loo loo loolu moo jaadu xam nga mooy li ma lay wax Balla il juste il juste d'arriver te wax dëgg yàlla comme li ma wax rek ñun ñun làmb ñun mbëri benn bopp lañu tey bu ma fi teewee. Balla teew fi kullu mbër kullu mbër ancien ki nga xam mi ngi nekk en activité yëpp yóbbaale nañ leen ñëpp mënuñu fee teew parce que bari na ci ñoo xam ne tey euh, wax dëgg yàlla dañ dañ nekk ci ay combat mënuñu mënuñu mënuñu mënuñu fi teew mais ñu ngi dëggante ak ñoom ñu bokk ci association nationale des lutteurs yëpp wax dëgg yàlla ñu ngi ci am solidarité nekk ci ginnaaw suñu candidat muy Malick Ngom Balla teewaayam fii loolu pour ñëw ak main forte pour wan cofelam wan Sénégal gi yëpp wan la ministre bi ñu ñi nga xam ne tey se nous les acteurs làmb buñ koy wax ñaar la ñeneen ñëpp ci ginnaaw. mais Gris yëg la leen def. non Bécaye loo fa jaadu xam nga tey nous sommes dans un pays démocrate waaw voilà waaw on on a on est dans un ku nekk am nga droit <laughs> ku nekk yow mi sax am nga droit boobu. kon loolu ko loolu du débat waaw ngeen may euh, l'empereur. waaw mu dugg génn presse lu mu wax noonu. l'empereur xamagul lenn lu xew ci biir. waaw mais mais non bàyyi waaw waaw bàyyi na ko mu dugg kay génnaat. nuyu naa la. l'empereur xamagul xamagul lu xew ci biir. ñu ngi ko bàyyi mu dem ñëwaat kon boog. carte gi du ma ko jaxase. doo ko jaxase doo ngaaka nag. <laughs> nee na bëggul jaxase carte gi nañ ko bàyyi kon mu dugg ñëwaat. ampleur a ngi noonu ànd ak Gris Bordeaux. Abi kay yow rek yéen kay dem ji fexe leen ma jëm a jiitu rek. ay sànn ñu bàyyi ampleur bi dugg mi ngi nuyoon teg ki nga xam mooy caaka fay. dañu bàyyi ampleur bi ñoo ànd ak Gris Bordeaux le président Gris ñoo ngi noonu ca bu génnee nag doog waxtaan ak moom. Guys,